xëtu yéenekaay yi soxna Binta la lañ ciy àndal loolu ñu koy ubbee. dañu koy daal di dooree Ousin Ndiaye ak Libération Libération mi nga xamante ne daal dinay ñëw ak ñun ci marché bu building administratif bu Amadou Dia boobee nag nga xamante ne ab rallonge la daal di am ñeel milliard cent de francs CFA boo xamante ne acté nañu ko ci février atum deux waral na ba direction centrale bi yor wàllu marché public daal dinay opposé ci certification boobee nga xamante yoon daal di ciy teg seen conco ñu ko loolee nag benn entrepreneur boo xamante ne moom moo yor marché gré à gré ci boo xamante ne ci diirug ñetti at lay daal di toll ngir ñu daal di koy mën a renouveler bu ñu sukkandikoo ci libération mi nga xamante ne moo daal di def yooyu les révélations président de la république mi nga xamante ne nag daal di nañu koy jébbal rapport final yi nga xamante ne moom la ñu doon amal ñeel assise de la justice la yoon kenn du ko ranger dans les tiroirs dinañ xool nag li a appliquer ñu daal di koy appliqué daar daar ba tey ci libération ñu daal di fay fekk jëwriñ bi ngaddaa yoo woon lépp lu jëm ci wàllum justice di Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall kaddu ya mu yëkkati woon nag ci génnuk àddina kii di Didier Badji ak Fulbert Sambou waral na ba Ismaïla Madior Fall daal di deltuwaat ginnaaw ca kaddu ya nga xamante ni yëkkati woon na ko daal di ne ab lapsus la mu ngay jéggalu bu baax a baax Sud Quotidien la ñuy daw daal di koy wëyali mu dikk ak ñun ci retrait ñeel président de la République ci conseil supérieur de la magistrature moom la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na waaw waaye tamit daal dina cay teg déet waaw am déet lu mu ci mën a doon jamono joojee nag ki nga xamante ni moom moo di professeur Babacar daal dina koy jébbal lépp loo xamante ne ni ab rapport la bu ñu noppee ca assise ñu doon amal ñeel wàllum justice dañuy daal di teg li nga xamante ni moom moo di Sud Quotidien da woyale ak Walf Quotidien Walf Quotidien moom daal ne du ma ne waaw du ma ne déet ga nga xamante ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom la daal di taxawee ci li ñeel bokkam ci conseil supérieur de la magistrature ginnaaw professeur Babacar Gueye moomee nga xamante ni daal dina koy jébbal conclusion ya ba ñu ca daal di noppee ba tey ci Walf Quotidien ñu daal di fay fekk nomination ñeel ministère de la santé wi nga xamante ni nag lenn ci ay syndicaliste daal dinañu koy taxaw di ko naqarlu bu baax a baax ndaxte gis nañ ne mbir mi mbirum xarito ak jàppalante ay tànk def ca daal di am les ko yéenekaay daal di dikk ak ñun nag ci lu ñeel 100 jours yu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxtu boobee président Mbow daal di nay takku jatu jàkkaarloo ak régime bi daal di ne régime bi lee li ma ci gis mooy puusuñu paasuñu te it delloo ñu ginnaaw la ñu daal di nekkee te waxtaan wa ñu war a waxtaanee ca pale ñu nga koy amalee fële nga xamante ne nag moom moo di ca primature ba tey ci les échos yéene ñu daal di fay fekk Bassirou Diomaye Diakhar fay le président de la république mi nga xamante ni jébbal nañ ko rapport bi ñeel assise de la de la justice yooyu muy xamle nag daal di ne du usé ci li nga xamante ne ni moom moo di ab dooleem daal di des ca fële nga xamante ne moom moo di ca conseil supérieur de la magistrature waaye nag ñu ëppee ci magistrat yi bu ñu taxawee d'accord ne na ca des munul def lenn lu dul daal di nangu dogal ga nga xamante ne ñooñee ñu nga koy sàkko ba tey ci les échos yéenekaay ñu daal di fay fekk benn candidat boo xamante ne nag mu ngay wuyoo ci turu Mahoureye Dia Thiam candidat boobee nag nga xamante ne ab waylaago la te terewul jàng na bay def bagam ba muy def bag ba ab euh, sijaada lañu ko daal di lalal mu daal di cay toog soonu di def li nga xamante ne moom moo di épreuve baccalauréat yooyee atu ya nga xamante ne Zaynab Diène Samb daal di na koy am di miss mathématique boobe waral na ba Les ko yéenekaay xëy daal di def ci moom ab xët wu yaa l'observateur seetlukat bi la ñuy daw daal di koy wëyali fekk fa Birane Ndour doomu Youssou Ndour googee nga xamante ne nege ni démb daal di nay xamle ne bu ñu taxaw benn yoon ne groupe Futur Média du ñu fay li nga xamante ne moom moo di fisc ñu ne ko déet waay mu daat ne fay lañu koy def waaye koy fay nag danga ko fay waaye tamit dinga nga ko daal di yoreel moom Birane Ndour taxaw di teggi tuuma ga nga xamante ne nee nañu GFM du ñu fay li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum fiscalité viole yi nga xamante ne nag jamono joojee daal di nañu koy nemmeeku lenn ci ay malade mental waral na ba l'observateur xëy daal di ciy def mbir mu yéeme ndaxte nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ñi nga xamante ne dañaa tàggalikook seenub xel dañuy sàkku sàkku gu métti remise ñeel li nga xamante ne nii moom moo di rapport final bi jëm ci assise de la justice yooyee ana yan voie la ñu a mën a jaar ngir justice bi tëddee njaaxaanaay moom professeur Babacar Gueye nekkoon facilitateur bi doon def li nga xamante ne nag moom moo di yooyu les assises daal dinay jàkkaarloog président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di koy jébbal li nga xamante ne moom moo di conclusion yi conclusion yi nee nañ daar daar ne lu ñuy appliquer la lu ëpp 87 morts tegatu leen ay gët ci benn naufrage boo xamante ne daal dinay am ci benn gaal ga doon def tukki gu jaarut yoon foofee ca waax yu Mauritanie l'observateur moo ñu ko daal di xamale gone ga nga xamante ni woddoon nañ ko beecoo teg ko ca diggub géew muy lëmbal ana lan moo ca war a mën a tuppee ñu daal di ne lu dul ñàkk teggin ak wow bët ak génnee li nga xamante ne moom moo di gàcca ak kersa ci gone googee loolee ñu seen xam-xam màcc ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu tout tànk ñoo ko daal di xamle ca l'observateur ginnaaw juróom-ñaari doomu aadama ya nga xamante ne yoon daal dina leen di tegub loxo laas quotidien la ñuy daw daal di koy seeti mu daal di dikk ak ñun mbir mu doy waar ma xew ca jëppal ñu daal ne benn soxna soo xamante ne màgget na ba am 70 ans la doomam su góor di menacé ba yëkkati ab paaka daal di ne dafay jël ab bakkanam loolee mu nga xewee foofee ca diwaanu ko jëppal crise ca pencu ndaw réew ma docteur Cheikh Dieng daal dinay sàkku ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di ne ko nërmeelal pencu ndaw réew ma di assemblée nationale boobee moom Ismaïla Madior Major Fall ca L'As Quotidien daal dinay dikk ak ñun ci li nga xamante ne nag moom moo waral coow li mu daan ne coow li li ko waral lépp ab lapsus la di ab njuumte goo xamante ne ba ma laajee ci génnuk àddina kii di fulbeer Samb ak Didier Badji kaddu ya nga xamante ni daal dina ko cay yëkkati moom Ismaïla Madior Fall mu daan mu nga koy jéggalu bu baax a baax enquête quotidien la ñuy daw daal di seeti mu dikk ak ñun ci assise nationale de la justice les curiosités du rapport ñu daal ne rapport boobee nag la ca nekk daal dina cay bokk ci li nga xamante ne ñoom ñoo di magistrat yi nga xamante ne toll nañ ci 530 fii ci diwaanuk Sénégal avocat yi daal di toll ci 439 Fatick Kaffrine Sédhiou jamono joojee nag li nga xamante ne ni moom moo di justice li nga xamante ni moo di magistrat yi ak avocat yi daal dinañu fay manqué bu baax a baax moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal ne cour constitutionnelle ak lenn ci liberté ak li nga xamante ne ni moom moo di détention bi dinañ ko daal di jéem a xool daar daar ana naka la ñu koy daal di appliquer ba jojjanti ko ba li nga xamante ni moom moo di mbëbëtub sénégalais ñu daal di koy saafara justice ak application ba ñu daal di koy fekk ca le quotidien le quotidien mu daal di dikk ak ñun ci justice application des recommandation yi nga xamante ne assise bi daal di nañu cay noppi Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ngay daal di def ca yoon woo xamante ne ab yoon wu sedd la di voix basse waxtu boobee nag ana ban objet la ñu war a mën a jël xamante ne ni lu strict la ñu daal di koy appliqué ca la nga xamante ne waxtaanee woon nañu ko état du Sénégal contrat wa nga xamante ne moo ñeeloon 450 milliards bu kërub liggéeyukaay gi nga xamante ne nag moom moo jëm ci dindi ndoxum xorom si daal di koy def ndox moo xamante ne mënees nañ kaa jëfandikoo muy Aqua Power moom mi nga xamante ne nag moom moo di seex Tidiane Dieye nekk jëwriñ gi yor wàllum assainissement ak eau daal nay jël contrat boobee daal koy rompre ba mu set moom ilimaanu jëwriñu Ousmane Sonko war naa dem fële nga xamante ni moom moo di ca ndar géej ki nga xamante ni moom moo di Mansour Faye daal di ne nañ ko defal teraanga yi ndar bis bu ñëwee samedi ñëw seet si ñu nañu ko daal di dalal comme na mu daal di waree source a ñëw ak ñun ci li nga xamante ne moom moo di rencontre entre lenn ci ay président bu groupe parlementaire groupe parlementaire bu wallu bu yeewi askan bi ak bu bennoo bokk yaakaar ñu daal ne lañ doon waxtaanee jamono ji daal di nañu koy xam mooy jéem a xool li nga xamante ne moom moo di place su premier ministre bi ca règlement intérieur ba ana naka la ñu koy jojjantee daal di ko cay dugal waaye président bu groupe parlementaire bu wallu bu bennoo ak bu ak bennoo bokk yaakaar ak bu yeewi askan bi ñoom dañaane nañ leen may ñu dem waxtaane ji ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen ëpp député ay promesse yoo xamante ne Serigne Ngoundou moom moo ko defoon ngir ñu jojjanti justice boobee jamono jile nag ñëpp ñu ngi koy déglu ginnaaw ba ñu ko jébbalee li nga xamante ne moom moo di conclusion yi vox populi la ñuy daw daal di koy wëyali mu daal di dikk ak ñun ci li nga xamante ne nag moom moo ñeel jamono joojee war nañu kaa appliquer li nga xamante ne nag bokk na ci yi nga xamante ne assise ñu nga ko doon waxtaanee bokk na ci li nga xamante ne nag moom moo di transformation systématique bu justice boobee nga xamante ni nag warees nañu kaa jojjanti président ca di ca biir conseil supérieur de la magistrature argument yi nga xamante ni jamono joojee nag daal di nañu koy avancé bokk na ci ana naka la ñuy daal di def ba président daal di des ca conseil supérieur de la magistrature Cheikh Tidiane Dieye daal nay dellu ak contrat bi nga xamante ne Aqua Power ñoom ñoo ko signé woon ak président de la république Macky Sall mu daal ne ci weerum février la ñu daal di signé woon yooyu le contrat te contrat googee nag amul benn njariñ toll ci 450 milliards contrat boobee daal di nañu koy rompre Ousseyn Ndiaye mbooleem yéen kay ne ni tey lii la ñu xëy fesal ci seen à la une.